Vamos ya, pega, tripa. Vamos ya, Vamos ya, waaw allo waaw noo amul waxal li ngay wax gaawal de non danga may déglu ma wax la gis nga tey lu ma lay doyee nii billaahi boo ko xamoon di ma déglu waa ba tey waaw may déglu ma rek su ma paree après bu la neexee nga coupé damaa yor say vidéo yor say preuve yu leer naññ nii nii nii ngay def naka sudul noonu yow waaw yaa ngi nii kay ci sama ci yaa ngi nii ci sama ci sama téléphone te ba pare am na feneen fu ma la envoyé dugal naa la ci disque dur denc la bugguma mu effacé wu bugguma mu réer li mu bëgg nag mooy lépp loolu def nga bàyyi ko nga fekk ma fii léegi léegi ñëwal maa ngi sa wetu kër jege naa la boo jàddee sa kër rek am na bâtiment bu ñuy bu ñuy kii bâtiment bu ñuy commencé foofu à droite waaw te moom porte mu noir bi voilà waaw waaw waaw waaw maa ngi foofu looy def na nga ko bàyyi ñëw sinon dinaa jël vidéo yi tas ko ci biir dëkk bi a ah, sax am na ko moom man mako mu gardal mako pour en attendant dugalaale ko ci disque dur bi voilà ñewal na melni Serigne mo wor noo nga am dikkal fi mu toll nii c'est ça di donc nek bi ni la rek ko ay da ngay wal sa moom ba mu rumbu yalla mo ay ci potum bu te nek kilifa mo gaaw <laughs> mais xanaa mu jaaxaat nag ak benn meloog kii de bu ko Soxna Diagne jàppee dina ko duma duma yoo xam ne. Euh, man dama di kilifa. te na yoo xam ne bu dee da ngay caaxaan naka kaf na ko arrêté arrêté ko bu ma tëddee ci kër gi jeex na jeex na waaw lii léegi lan nga ci jublu yàq li mu ci jublu maa ko xam bàyyi léegi lan nga ma bëggee yàq dañoo sonn ñoo sonal ci naka billahi dag ñoo sonal te ñun dañoo war a am jàmm léegi fi mu toll yow comme jàpp nañ la te yow wii madam nga ñi ma woo sa jabar li ma bëgg moo ñu teg ko ci code ci code bi koy teg mooy koñ bi léegi man maa fi sa patron au lieu da dem ci chef de quartier di ko wax li xew man ngay ñëw wax ma li xew soo amee lu la métti da ñëw ci man boo amee lu la neex dangay ñëw ci man dégg nga su ma yónnee ma woo la yónni la. Eh, xooloo xooloo ma nag xooloo. yor vidéo rek. waaw maa ngi dem waaw wuy ma dafay ma dem. su ma yónnee ma yónni la. incha allah. voilà jeex na loolu koy yomb la léegi su ma yónnee. dama lay yónni. Mm-hmm. bàyyi soo gisee ku yàq sama der. lijjanti ko ñëw wax la ko. voilà nga ñëw wax ma ko. léegi nga ñëw wax ma ko. soo gisee xale bu mool boo xam ne baax na ci man. ma may la gel nga may ma gel bëgg naa gel kon ah. bëgg naa gel. Eh, bëgg naa gel da eh, eh, la ñuy def. ah mais vidéo kaw mu dindi vidéo yi il faut que trois mois bàyyi. parce que il faut que mu mënee vrai la yow. yow bàyyi faa nga daj lu métti parce que sa àdduna mosoo ca lu métti. loo bëgg man dinaa la ko defal. waaw la bëgg nag waaw loo koy jaru ngay téye vidéo yi. Ah, dama damaa war a gum dara léegi su ma ko supprimé nga bañ maa gel nag. man naa la may gel man fi mu <laughs> yow loo bëgg tey jii de de de wax doyen. doyen yow DG. <laughs> DG. yow tey loo bëgg eh, dafa gaaw nekk kilifa dafa gaaw ba. ñoo yow du dara xefe voilà xefe ak ñàkk a mel noonu. léegi koñ bi damay gis ñu bëri dañuy naan mbuusu ndox yi bàyyi ko fii ci biti. waaw ah. boo xëytee dee ko ramasser. non ah. dee ko ramasser kon. nañu woo salatu mbaam mi xool luñu teg ci loxo. non non man yow laa bëgg nga ramasser parce que saretu mbalit bi mënul di yor saret di wàcc di ramasser yow ya, wutal sa benn gafaka rek heure boo xëyee nga for mbuus yi koñ bi daal man daal damaa bëgg a jox la problème mu set setalu koñ bi waxal waaw. bu ma def nii waaye yow tamit. non mais loolu bàyyi yow li lay wax nii non dama lay wax rek. naa for naa for nangu voilà del for kii yeeg yooyu. te bu sabar amatee. Hmm. apol tàccu. lu may def ci ay sabar bu xaxaar amat xaxaar sax léegi da ngay dem xaxaar su ma teel ay laabaan ak yooyu. léegi da ngay dem apol ko lawan gi jeex dafa góor jigéen yoy bay dama la sante voilà te et puis birig yee dafa déborder nañ dem nga rangel ma ci quelques birig comme moom birig da ngaa am borom non mais fi koñ bi la rek hein ah. comme déjà là et puis doyen la fani patron là yalla jox na ma mbagg man atunu doon naa ba bàyyi na birig yii di nga len roñ urdu yi di nga ci roñ quelques def ko ni pour mu bàyyi yoon bi billahi wala ma wili mandela man amatu mu ci mujj ragal say vidéo laa yor ak yàlla naa day lekk ko boo roñu biir gi man ma ma limaane la. feebar tey baw bi mu jàpp feebar tey baw ba mu jàpp feebar tey baw ba mu jàpp feebar tey baw ba mu jàpp feebar tey baw. nit soo nekkee kilifa dëgg la ànd ak koo xam ne taxawaalukat la comme yow. da nga koo war a teg ci yoon. dëgg la dëgg la fa tabarakallaahu. Mhm. loolu la rek du leneen. Ah. ramasser le brique la. xala xala yi fugal ñofi sanni fiy sànni yi ñoom def fi pour problème ay camp yi la yooyu xam nga. dañu bàyyi briques ñi def fii ay camp def fi oui ya beaucoup de de de de sur ici quoi. et xam pour force la. non brique ki la brique urdu la pour dal la quoi. Thank you. daa jëf bi ah jëlal bi dama lay woon. dama dama jàppale ni ma dëkk bi. bàyyi balaa ngaa jékki dinaa la ma ne waa dëkk bi xam li ngay def yëkkatil biri bi ma wan la téye ko ànd tànn téye ko téye ko. ah dis nag yow tamit la avancer gunge ma. gunge ma. xaaral ah, toog na foo gunge. bàyyi yëkkatil brique bi ñu dem ma lu ma dox. ma jàppale brique bi yëkkatil brique bi dis donc mais xanaa man du sa patron bay ma lay wax ngay def ma tere ngay bay allez marche le pieu dis donc dañ dem ana eh, soof lay doxaan lan ngay doxaan ah feebar tey daw ba ba li nga def nii ah. dootoo ko defati xam nga pour yow la moom ci yow yomb mën nga koo def jéggalu rek doo baal nan la mais daal del dox ci norme yi rek ah, del dox ci norme yi ah. comme boo yenoo birig ba sa kii karaw yi naq yëpp dañ bu ëllëg waa tegal fi birig fan teg ko teg ko teg ko ne tegal ma fi la baa ma teg ko waaw kon teg ko noonu teg ko noonu teg ko foofu baax na waaw léegi yow bu subaa ci garaawaay yi ci mbedd mi ngay xëy garaawaay yi ci mbedd mi ci nga war a xëy parce que y' a beaucoup de gravailles ici quoi. gravailles yii nii. waaw yii nii yëpp kuum kër man xaw ma seen borom sax dama la yanu loolu pour la forme rek man xaw ma sax seen borom. salte bi moo ma neexul quoi ci mbedd mi léegi daal yoo xam lu ma bëgg su ma la woowatee tag cinq minutes na nga ñëw. waaw ah, baax bu mu am dix minutes. incha allah bàyyi su ma la wooyee bul taxawaalu. incha allah melal ni GP frij faraj ñëw. amul problème moo xam li ma la doy nga ne faraj dellu. incha allah kër ga. kër ga loo fa yàqoon kër gi fee ci madame. Ah. waaw a Fall uh-huh. lépp loo fa yàqoon uh-huh. demal nga defar ko loolu itam ci contrat bi la bokk ci sànce bi la bokk inshallah dégg nga xam nga loolu moo gën a sedd roñ ay birig urdu dëgg la voilà léegi yow après doxal ma lool mm, ah, léegi bu loolu weesoo mm-hmm. bureau mi ngi nii heure bu ma la wooyee ne nañ daje ba fii la ñuy daje dégg nga ok allez porte-toi bien merci jërëjëf Fall ciao Fall waaw fexeel bul dugal vidéo yi dégg non du ko dugal yow nekk ci norme yi rek non yaa koy kiil jërëjëf Fall ah Fall man yow laa yaakaar yow laa gëm aw ma kudul sama wasi la de la ce ay addunaa ngi nii teena samay vidéo di ma manipuler ah bu fekkee de ñi ñuy jàpp seen vidéo nii lañuy sonne moom ah te kii de def xaj sax moom ay birig la may roñ loo ki travail yu jàmbur te moom muumul kër gi kon kii man lay woone Pagi semua. Thank you. This <laughs> is ചെയ്യുന്നത് അഗ്നിയോട് ബോധിക്കുന്നു ആ ഒരു ഇഷ്ടത്തിലും സ്വന്തം Thank you. non pallinio con lei e con io siamo tutti tutti tutti la Africa allora passa tanti chilometri da tanto da passare tutto questo da e fa molto più di tutti allora diciamo dove si può si muove da tutto questo da ma di nuovo allora ma non è più di ambito non è più di